bi nga xamee ne yéen ñëw ngeen wax ko kàddu yi nga xam ne bàyyikoo na ci ñooñu la ci wërtee fa mi def na ko mooy jokkoo na ci ki nga xam ne moo jiite réew mi leeral ko loolu yëgal ko ko ñaan ko ci lam ko ci war a ñaan ba moom itam dégg na ko te incha allahu ni ko ko sëriñ bi ñaanee it gëm nañ noonu la koy nangule kon loolu itam na ko adduna sépp xam